bis boo xam ne dafay euh, dafay bis bu rëy rëy euh, bis boo xamante ne bii euh, mën nañ ne ci la ci la ñu jot suñu indépendance bis boo xamante ne bii sëñ bi dafa demoon liggéey liggéey bu rëy rëy rëy ba boromam ba muy dem 1895 booba ñam ko seqaloon ak ñu bëree bëri xamuñu woon ne tey jii nii lay demee seriñ bi dem dellu si am lu ñu indaaleel te ba muy dem itam suñu jëmm yi moo ko moo ko yóbbu woon ndax dafa demoon rek ngir xetli doomu adama yi kon nag moo tax buñ ci agsee eh, dafa am yëg-yëg bu ñuy yëg ci màggu sëñ bi ci teddu sëñ bi waaye aussi dafa am yëg-yëg bu ñuy yëg ci delloo njukkal goo ne war nañ ko koo delloo njukkal delloo njukkal goo xam nag ci santale ko boromam comme ni ko ni ko bëggee woon noonu lañ koy defee moo tax ñëpp danga ànd tàmmalee waajal bis bi nga xam ne mooy bis bu rëy bi muy fukki fan ak juróom-ñett ci ci weer wi di dëppoo ak euh, màggalug euh, màggalug tubaa màggal gi xam nga ren dafay màggal goo xam ne day màggal gu gu gu gu bokkut ak euh, màggal gu rëy la ndax loolu ndax ki nga xamante ne bi tey moo di Serigne Touba di Cheikh Mouhamadou Mountakha dafay nekkoon ak ay kilifaam hmm, ànd ak ñoom ànd bu rafet topp leen nekkoon seen jëwriñ ci ñaari màggal mi nga xam ne ñoo jage woon loolu waajuram yi nga xam ne aussi ñoo ñoom ñoo fi jiite woon nekkoon Serigne Touba. kon tey nag bu demee ba toog fi nit ñëpp dañoo yëg sax njukkal loo xam ne war nañ ko ko delloowaat ci nangu ko nga xamante ne bii nangu na ko euh, kilifteef ndax moom waxtu wu nekk boo da ngay dégg mu ne day sama kilifa dama koy bàyyi sama bopp bàyyi ko boppam loolu foog naa ne joxe cër fa la fa la mën a euh, li nga xam ne comité d'organisation bi bi bi Serigne Bassirou jiite itam ën nañ programme boo xam ne programme bu yaatu la boo xam ay conférence yu bari la. le 19 danañ dem Njaareem def fa conférence le 20 danañ ñëw Ndakaaru Massalikul Jinaan def conférence euh, le 21 danañ dem Mbacke Bol def fa conference lu ko jiitu le 14 danañ dem kër Cheikh Abdoulaye Massar Ndiagne le 17 ñu dem kër Serigne Cheikh Hafs euh, noonu lañ ko toppee ba ba conférence yi jeex euh, bu conférence jeexee aussi am na table bu mag boo xam ne dañ koy def jëmmale ko ci wàllu jàng ak li nga xam ne mooy université bi nga xamante ne bi moom la sëriñ bi indi dajale ci borom xam yi nga xam ne ñu ngi ko doon waxtaan invité ci seen nattangoo ñu seq ko waxtaanee ko may aussi bokk taalibe yi ñu xam liggéey boobu fan lañ ci toll ak lan la ci sëñ bi namm ak fan la ci jëm loolu ña ngi koy def le 26 euh, octobre di tolloo ak fukki fan ak juróom-benn ci ci safar bokkut ak conférence bi nga xam ne dañ ko def ci bisu màggal gi ci yor-yor bi conférence bi ngi def ci guddi gi ak nga xam ne nag mooy cérémonie officielle bi nga xamante ni moom mooy jeexal euh, programme bi euh, li nga xam ne moo aju nag ci waajtaayu màggal gi ci boppam itam. réunion yi ñu ci waroon def ñu ngi koy def def nañu CLD def CDD def CRD ba ci ñëw fii au niveau national aussi def fi euh, def fi CRD avec le ministre de de l' intérieur euh, nag fi ñu ko toll kenn ku nekk wax na mébét li nga xamante ni moom la bëgg a def ca màggal ga muy ay engagement yoo xam ne euh, service yi ñu ko seqal jël nañu ko loolu nag bu ñu demee ba le 18 danañu dajawaat toog xayma kenn ku nekk lan mu waxoon ne moom lay def fan la ci toll. kon loolu fi mu toll nii mënu mënuguñ ci addu ndax kenn ku nekk commencé nga liggéey buñ dem ba le dana danañu toog nag xayma kenn ku ne wax la nga waxoon ne moom ngay def ana loo ci def ana moo ko des lan moo tax mu des ndax danga mën a mottali fii màggal gi lépp nag buñ demee nag bu màggal boo def nag ci la seet nag kenn ku nekk la ma waxoon ndax respecté na ko ndax respecté wu ko waaye jàpp nañu daal kenn ku ne am nga yéene def ci màggal gi moo tax euh, dañuy euh, suñu xel dal na ci waaye nag teewuti dañuy dañ ci ànd ak aku dal ak ak tey di di di seetlu waxtu ñun ñu toll ba xam euh, engagement ñu ngi ko respecté wala wala déedéet. ci euh, bu dee bu dee ci wàllu bu dee ci wàllu ndox mi nga xam ne aussi nekk na loo xam ne lu yitteel nit ñi la ndox mi xam nga daaw dafa bari woon ay jafe-jafe jafe-jafe yoo xam ne ba indi woon ay gàllankoor ci màggal gi. Euh, ren jii nee nañu am na ñeenti forage yoo xam ne balaa màggal gi dana dugg ci réseau bi ñëw yokk si ko am na sa beneen forage bi ma war a def boo xam ne nee nañ aussi moom itam mën naa amu pare fi ñëw yokku si nga xam daal kon dalal nañu suñu xel waaye nag màggal dafa toll noo xam ne aussi lu ma juróom million fu ñu dajee ci ñaari fan foofa euh, ngir matal lépp du yomb moo tax wax nañu ne jàpp nañ ne jafe-jafe war daa ma dama am ci ndox mi waaye nag loolu moom dañuy xaar ba àgg ca buñ ci àgg nag luñ ca gis rek su boobaa aussi ñu ñu ñu ko euh, noonu waaye ñoom daal nee nañu ndox mi suñu borom mën na ci bu dee li nga xam ne moo ci dem ak dikk bi itam lii di autoroute bi balaa booba des na ko des na ko tijji doon njëkk wax sax dañ ko tijji bëccëg waaye léegi den dañ ko tijji bëccëg tijji ko guddi loolu foog naa dana yombal lu bari ci dem bi ak ak ak dikk bi foog naa aussi jafe-jafe yu baree bari sunu borom bu fekkee demee na ni ñu ko waxee aussi mën na koo mën na ko mën na ko wàññi waaw màggal gi màggal gi ren dafa jege dafa jege nawet bi te Touba kenn ku ne xam na ne assainissement bariwut assainissement bariwut ba ñu bare bari sax dañoo génnoon seen ay kër loolu nag euh, xañ na ren jafe-jafe yam war a indi du ko indi ndax bi mu gëjee taw lem ab diir am nañu temps évacuer ndox mi ba nit ñi fi ndollu ñu bari commencé ñu delluwaat nañu seen ay kër rawatina fa nga xam ne mooy weti euh, bassin ba ci kër njang ak fa nga xam ne mooy weti ndaamaatu waaye li nga xam ne mooy li mat a bàyyi xel te ñu ngi wax depuis ñetti at ñeenti at sax bu ko ëppul moo di ne màggal gi dafa jëm ci nawet daanaka agsi na ci ndax ren dana fekk ndox mi jeexagut completement waaye fii ñaari at màggal gi ci nawet bi lay nekk nga ne même bisu màggal Tuubaa sax mën naa am mu taw ci loolu nag kon dafa laaj ay ay ay matuwaay yu mat sëkk yoo xam ne war nañ koo jën ba bu ñu àggee ca loola Euh, sunu boroom en tout cas dimbali ñu ba mu am ba ba assainissement bi nga xam ne moom lañ fay def gën a yaatu yaatuwaay boo xamante ne bii nit ñi jafe-jafe yi nga xam ne dinañ ko dinañ koy dund euh, moom mu mu daj ndax ndax kenn ku ne ca ña fa dëkk am nga ay bokk am nga ay wëlëre am nga ay mbokki tali bi ñoo ngi dañuy ñëw di màggal si ak yow di dal ak yow bu ñu dikkee nag fekk sax yow sa kër yow mënoo fi nekk yaa ak sa bopp xam nga loolu day nekk mbir mu doy waar moo tax loolu mën a suyee ñàkk jël ay ay ay pexe ba ba sunu borom euh, dimbali lañu ñu am ci euh, ñu am ci saafara. waaw kàddu gu mujj gi mooy dañuy sant euh, dañuy sant rek yéen ba presse bi ñu ngi leen sant aussi di leen di leen gërëm ci seen ci seen taxawaay ndax lu mat junni fu ñu dajee loolu neexut neexut a <coughs> waaye loolu lépp rek ànd na ak aku déggoo goo xamante ne bii waxtu wu nekk daal li nga xam ne moom lañ ci bëgg sunu borom mi ñu ñuy mi ngi ñuy kattanal ba ba ñu ko ci am. kon ñu ngi san sant gërëm te liggéey bi nga xam ne yéen ngi koy liggéey dañuy jàppale ci tasaare bi nga xam ne ñu ngi koy tasaare njàngal mi Sëriñ ñu ñuy wax waxtu wu nekk loolu dafa nekk mbir moo xam ne mbir mu mbir mu am solo la euh, la ci topp moo di ci mbooleem mbokk yi bokki taalibe yi dina xamal ne sëriñ bi ndigal li mu joxe mooy fépp foo xamante ne bii bokki taalibe ña nga fa nañ fa waajal màggal gi safar euh, moom tey jii nii rek waa njaareem ña ngay waaj ba am délégation boo xam ne dem nañ fa le premier safar ndakaaru ñu ngi koy waajal le vingt bari na ay ay gox ci Sénégal yoo xam ne kenn ku nekk jàpp na bisam buñ ci àggee yu ci bare bari sëriñ bi dana ci euh, euh, dana fa yónnee kon loolu aussi ñu ngi koy ñaan ñaan ñoo ñu waajal ko ndax wàccaay yi dafa solo ndax li muy jur moo di nit ñi dañuy xam lu bare bare bari bala ñu dikk ndax màggal gi dafay xat xataay boo xam ne yu bari buñ leen koy wax sax duñ ko mën a teewlu na mu ware bu dee nag dañ koy waajal soog a dikk nag danañ ko mën a teewlu liñ ci bëgg danañ ko mën a am te buñ dikk itam danañ xam naka lañ fi war a nekk naka la ñu war a mën a jaxasoo ak ak dëkk bu sell ba naka la war a jaxasoo ak njabootu Sëñ Tuubaa bu sell gi kon daal ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakatuh